وجهت كلي بحمد وشكر seen banque bi ngeen doon wër mbokk yi kenn jaaxleetul loo am bu ñëwee dencal waaye tamit loo bëgg ñu jox na ko boo matalee formalité yi ñu yembal la da ngay épargne dal lay jàppale di lay financé ngay liggéey doxal sa dëkk waaw ñëw leen sunu sond ñu wax leen nan la ak naka la dafa joge askanam képp ku am mbabatub liggéey képp ku bëgg yokkute ñëwal fii si microsen bu ngeen accès fii si foire bi ba tey ma ngeen ubbi seen compte fii si microsen bu ngeen fi accès ñu leeral leen. tout d'abord microsen benn institut financier la euh, mi ngi existé depuis 2013 2011 léegi nag euh, mais depuis 2021 ko FC Capital. Euh, jënd rek mu léegi nag ci muy yëngu ci financement épargne day def ay attestation ligne de crédit ay aval sur marché lépp lu banque di def dañ koy def ay épargne ay DAT lépp dañ koy liggéeyee. da ngay épargne dañ lay jàppale di lay financé ngay liggéey doxal sa dëkk. waaw ñëw leen sunu sant ñu wax leen nan la ak naka la. bi ñoo ngi Touba et avec. cinq auto agences sur Dakar mais ñoo ngi ñoo ngi étendre suñu ay périmètres ci yeneen région yi on n'a pas benn stible spécifique on est avec les commerçants comme microfinance la ñëpp la ñuy ci ñëpp lañuy ñuy jublu. micro dafa jóge askanam képp ku am mbëbëtub liggéey képp ku bëgg yokkute ñëwal fii si microscène bu ngeen accès fii si foire bi euh, y a y a deux types de comptes trois pour groupement yi mooy GIE ak yooyu ak euh, euh, ñu am ni ne yaa compte entreprise yi ak compte personne physique yi nga xam ñi nga xam ne amuñu ay informel bi la ñu gën a nekk yooyu yëpp dañuy ubbi seen compte ak ñoom ñëpp waaw ñoo ngi ci ñoo ngi ci internet bi et tout am na am na am na site internet microsen point com am nañ tamit ku bëgg a joindre ñoo ngi ci 28 bi ci wet bi en face Africa com ñoo ngi foofu ku bëgg après froid bi rek ku soxla kii rek da ngay ñëw foofu incha allah. ba tey ma ngeen ubbi seen compte fii ci microsen bu ngeen fi accès ñu leeral leen.